gereñu ñebbe yàgg na di am ayib bawoo ci puudar ak përëdi yi ñu ko doon dence li indi ayib boobu mooy xeeti gunóor wala naawtal yi mën a yàq sàqum ñebbe ci juróom benn weer benn xeetu doxalin ngi nii buy faxas wala wàññi yooyu yàqu-yàqu ci jëfandikoo tàngaayu jant bi lu weesu juróom fukki degere ngir rey gunóor yi cig njaalbeen defaral ak basang ak xob yu wow ay bant ak car yu ndaw tàllal ko ci kaw suuf si ngir téye tàngaay wi ba du jàll muure ko ak laltu plastik gu ñuul ngir taataan tàngaayu jant bi wesaareel gere ñu gi ci kaw laltu plastique gi juróomi kilo yu nekk ci benn mètre bàyyil ay diggante yu ndaw ci diggante doom yi ba perméable bi man di dékku tàngaay wi boo noppee nga muur gereñ gi ak laltu perméable bu weex booleel ñaari cati laltu yi te teg ci ay xeer wala suuf ba duñu naaw weer ko ci naaj wi ci ñaari waxtu dina rey bépp gunóor bu ci nekkoon jëril gerañu ñebbe gi bu ko laajee ngir dindi gunóor yu dee yi defal gereñ gi ci ndab walla dencukaay bu ubbu kàpp ngir mu mucc ci ayib gereñu ñebbe gi ñu toppatoo noonu mënees na koo jëfandikoo ci bépp waxtu te du jar aajowoo poson